tey dañu daje woon euh, rassemblé waat euh, tous les troupes parce que gis nañ depuis après les élections euh, dajewuñu ñu woote woon tous les responsables qui sont dans la zone sud nga xamné moy daru salam bour Mbour Guy Murit zone Sonatel Mbour Tukulër pour ñu waxtaan ci fiñu jëm parce que aussi ku nek xamna né euh fiñu jëm dafa laaj nit ñëpp and doon ben manam pour mën taxaw andak son excellence le président Macky Sall pour mun ko Falat, loolu nous li laaj moy euh, ñu mobiliser wat jigen ñi mobiliser wat ndaw ñi wax euh, ah. aussi ci seen besoin ci nga nga soxla nañ ko moy ci ndaw ñi ci walum financement yi ci walum yoy ñu mën leen jappalé ba nga tamit dañ pour gën ñoo mëna jappalé ñi c'est des militants xam des militants disciplinés te ñun euh, fi nga xamné moy suñu centre bi nga xamné moy centre Omar euh ñun ñoy coordinateur bi té élection bu fi jaar rek dañ koo gagné. Euh, local yi dañoo gagné législatives yi yu metti metti dañoo gagné kon nak yelloo na tamit euh, responsable yi nga xamné ne ñoo nekk ci kaw ñu del suwa euh, xolaat seen ginaaw jàppale ñi nga xamné ñoy jeunesse bi jàppale femmes yi ñi nga xamné ñoo à la base di liguey parce que nak bu perdre commune Mbour bi dañoo wara a taxaw boole waat suñu force gëna taxaw nek ci té lolu du nekk tëdd à Dakar wala toog sa bureau mooy tax résultat yi changé li tax résultat yi changé les responsables doivent être à la base wacc wax ak nit ñi dimbalé jeunesse bi dimbalé jigen ñi mais responsable yo xam ne balaa ngeen leen gis programme am wala euh, dañu jëm ci ay élection lool nak so démé ci population population dañu dal di banque seen loxo kon yoy ñom dañu wara a taxaw ñew ci base bi wax ak nit ñi liggéey pour son excellence de président Macky Sall parce que Macky Sall dafa am ci ñom yaakar jox leen ay ndombal tank kon nok nañ wacc à la base jappelé njabootu président Macky Sall bi jàppale population muyee le mayo il faut qu'il mouille le mayo mais parce que suñu la maillot il faut nous renverser la tendance parce que la commune de Mbour le locomotive département bi grenier électoral bi kon loolu buñ ko Donc, pour nous, sax bi lancer un appel solennel à tous les responsables de l'APR de la commune de à l'union des cœurs nañu ànd doon benn xàccandoo doorondo parce que kenn soxlawul ku dul son excellence le président Macky Sall te Macky Sall nag wàccoo na ak waa Mbour parce que jël na ay doomu Mbour nommé leen ñii mu def leen député ñii mu def leen ay président conseil départemental ñii mu def leen ay DAGE ñii mu def leen ay DG ñii mu def leen ay PCA kon nañu delloo mbaat mi ci ndaal li